nekk ministre depuis at bi ma ko amee man bu ma joxoon ministère ak ay milliards gëw ma ne mën naa ko yor mënoon naa nag ñaxtu bind ay bataaxal bind ay tract waaye yor ay alal élif say moromu ñu mu mën a jur loolu yombul te gis naa nga koy def ci te naw naa naw naa ci loolu sa sëriñ waxuma la sa njiit de ci politique mais comme da nga ko def sëriñ jébbalu ci moom bu waxee loolu ci yow mbégte mënut a weesu loolu ci yow waaye nag li may jiital mooy mm. euh, loo gis am na fu mu jaar mooy ma nekkee xale bu ndaw am fukki at ak ñeent lañ a fal ma nekk président foyer CM Babacar CM euh, Moustapha Diaye bu Kaolack photo yaa ngi fi archive ngi fi. Ah, am na si boo ma joxoon maa ko waaw ñu falaat ma encore bi ma nekkee troisième jógee fa dem lycée Valdiodio Ndiaye boo xoolee ci histoire njëkk a fal président foyer lycée ba ci élève élève première. Hmm. bu njëkk terminal moo ko doon jël. bi ñëwee aussi université kon nañ ci loolu ba nekk kii njiite fac bi gën a mag ci université Sénégal yi mooy faculté des lettres et sciences humaines nekkoon fa président ba bala may dugg ci yëngatu ci politique baax a baax ci xale étudiant wu PDS yi ak ci ndaw PDS yi dëgg la am na ñu ma ci jiitoon ñu ma ci mag waaye dama ko booleel aussi ak jàng bañ a sàgganee sama njàng parce que moo taxoon ñëw Ndakaaru te ma gëmoon ne man li may suturaal ci sama dund. ci li jaasa laa ko mën a amee ci li ma gëmoon parce que donnu ma fekku ma. bi ñuy fàq loo amee nag may dugg ci nekk ndaw. Mhm. lii gën a yombal mbir mi ma dajeeg tànn koo xam ne ni njiit la bu fonk ndaw muy Ablaye Wade tabb na ma en tant que ndaw parce que moom dafa gëm loolu óolu ndaw bëgg a yëkkati ndaw benn mel li ci am solo te ñu koy wax léegi wala mooy bu ma ci parparlo parce que xamul sama baay xamul sama yaay bokk ñoon ma ci fàttaliku àndandoo walla ormal xaritam dafa tànn ci xale yi kenn waaye nag ay lay ween euh, la yombal diggante ba dafa nekkoon ci parti ba ki ma selboon ci parti ba ci ndaw ñi muy Modou Diagne Fada moo jiitu woon xale yi mm-hmm. man tam ma nekk ci xale yi mu ràññee ma ci xale yi ba ma toftal ma ci wetam donc tàgg na ma ci Ablaye Wade mhm. lan ma bàkk ci Ablaye Wade si Ablaye Wade ba ñu teglantee loxo mu gis lu mel noonu gëm ko donc moom mun naa wax daal moo def moo moo def présentation ba mhm. euh, la la la gën a yombal diggante ba ca départ ga ci moo la jógee ko mhm. euh, ma def ko mag mu def ma rakk euh, loolu aussi dafa am solo ñu koy fàttali parce que jóguma rek dajeek Abdoulaye Wade comme ça nii nii am na fu mu jaar xam nga Sénégal ñu bëree bëri dañuy dañuy jéem a suuf suul jëf wala fàtte li ma defoon man tamit ñu bëri ci réew mi fi mu nekk kilifa yu mag a mag a mag. yàlla xam ne li yàlla jaarale ci man jëm ci ñoom bu ñu ko génnee seen dara seen dara du desati presque. waaye ñoom du ñu ma seedee loolu ñoom. ko wax dañ koy gas ci suuf di ko di sax. di ko ne man dem naa ba tey ay ñoom yóbbu ci ab la lu def lu nekk def naa ko ak ñoom mais loolu wareef la parce que yàlla du joxe koy jaarale ci doomu aadama da lam jaarale ci yow def ko ba mat sëkk ak barke. la nga cey ak la nga cey bu ko toppatoo. ndax yàlla loo ko defal ci jaamam yi. mu fay la ko ci beneen jaam bu dee sax ka ko defal xëy na moom mën na laa fay safa safaan lu rafet. lu rafet dafa am dafa am benn aspect également boo xamee ni dafa nekk si sa parcours. Mhm. parce que moment bi ñu toll dafa am ñu bëri seen ascension sociale mën nañ ko woowee noonu. ci mhm. politique la jaar. Mhm.